làmb ji le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fattal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaque mënoo si dara arnaqueur bi da lay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom maire la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa gën a dëgër bu maire. amul la kat nga am arrêt te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doon départ. Pikine de saxoon Balla lañu wax waxuñu Pikine Jacob Baldé Sanca Pañ la nangooy ndeem ku baayam am piscine du fay ci mooy futur roi des arènes Alboury Seul Alboury kese sang mbooti yàqu ndox la waaw mais ci la bokk dama leen a namoon deux mois ngi ni expliqué wu ma du waaw dëgg ne lu waraloon teewaay bi teewaay bi mooy askanu lamb yëpp nee nañ ba nga daree ku dàq bëri Jacob mosoo koo am waaw non nañ ñoom nañ gëm loolu rek mais man moom yàlla dogal na ni Euh, li ma liggéey rek laa xam man euh, maa ngi ci li ma war a nekk te wax dëgg yàlla dafa bokk ci yoon bi rek incha allah mais mais mais li ma bëggoon naa ku gën a weex nag bëggoon naa ku ko gën a saf bëggoon naa ku ko ku ko ku ko raw ci làmb mais comme que ñi ma bëgg a mën a bëreeg nangu ñoo bëreeg man looloo tax ma jël ko mais tamit euh, du du du du question de dama ko jël pour dara mais dama ko jël pour daan ko dama ko jël pour wane sama bopp. bëggoon naa lu ko gën nag mais comme que moom la fi yàlla teg pour l'instant te bokk na ci yoon bi ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér ba jour ba ñu def li nga xam ne moom lañ ko war a def après li des yàlla baax na. parce que boobu ko bëggoon naa te ndaanaan la aussi. ndaanaan la maa ngi koy suivre bu baax a baax a baax a baax xeebu ma ko waaye man dama ne la borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin nga fay fekk ak ay commerçant yu jaay li ma la dafa leer xeebu ma ku yàlla di bind. yaa ngi dégg ma ku yàlla di bind te ñaanu ma yàlla xeeb ko te képp ku ne ma maanaam Jacob yaa ko mën dama lay saaga ne la yow sama noon nga da ngaa ma daanu. kon man xeebu ma ko jox naa ko cër bi nga xam ne moom laa ko war a jox ñi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ci kaw jox ak bal ñaari mbëri mel ni ku la xeeb na Jacob Baldé dal nga ci. waaw maanaam dañoo xamul àdduna rek waaw xamuñ ko ndax Jacob mënul xees pecc mën mu ñuul kuk ñu ne moomu mën Jacob tey jii bu ma bu ma daanee man ay ñoom Mame Ndiaye Savon ñoom Mami Cobra ak ñoom Tima Foussane dañ non du loolu de yàlla mooy maye ndam nag Jacob mën na ma jàpp daan jël bu rëy loolu yàlla décision bi sunu borom la waaye dama ne bis moo daane billaay jaakatu euh, saabu yi dinañ ma yëpp waaw en tout cas daal ñun liggéey nañ lu ñu war a liggéey lépp di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy maye ndam xam ne Jacob mën na ma daan mën naa ko daan yàlla na ma yàlla may ndam ma daan ko jël bu rëy waaw dañ koy boole ci lim bi rek après ñu xool leneen voilà bu waaw comme comme yàlla dafa dogal ne affaire moom moom bu tàngal la rek bu jeex nga yóotu ba ca des voilà waaw jaw sama jaw yooyu lay def voilà ah waaw bu bu bu bu moom euh, mën na maa taqal deret nag waaw mun na maa taqal deret mais yàlla baax na daal yàlla nañ bëre daal yàlla nañ bëre ma daan ko jël bu rëy kenn bañ a gaañ moromam voilà ndax ku ku ku baax la ku yaru la wax dëgg yàlla. waaw yooyu yëpp amul problème voilà yooyu yëpp amul problème mais damay ñaan yàlla yàlla may yàlla mi nga xam ne mooy may ndam mu may ma ndam ndax instant bi nii communication bi changé wul de Alboury moo changé no problème bi du loolu de dama doon euh, dama doon ñëw di wax di bégal nit ñi di kaf di foo di ree ñi ñi non jeexul de mais maanaam ñi ma war ta ñoo ma ciy yëpp man dañoo am ay champion yu mag yoo xam ne dañoo ñëw di leen wax avance su Alboury ñu naan ay booy bi comédien la teguñ ko fenn voilà kon nag léegi ku bëggati ay reetaan yi nga dem mbëroodi wala nga dem si ñoom saaneex wala nga wala wala nga dem maanaam ci série yi nga dem si reetaan yi wala bete bete wala nga xool foo dem seetaan yi mais ku bëgg làmb nag ñëwal xool tey damay làmb incha allah jërëjëf Pape Balde Pape Sarr def lu rafet tey ñu gis Pikine yëpp booloo topp ci ginnaaw Ama Baldé nekk fi nga représenté ko ak ay rakam tey père gannaaw bu ñu jógee ci làmb ji nga xam ne ni moo amoon sànq fële ci arène nationale père lan ngay wax ak mbokk internet yi nga xam ne ni ñëpp la bëgg waaw sant yàlla jul siyant bi sant sama ñaar waajur uh-huh. sama sama sant atee mbak yàlla fi yàgg te wér sant njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp di nuyu mbooloo ANCAR bi. waaw waaj nag la seng poxo sol. waaw maa ngi tuuti rek ñoo ñoo ñoo xam ne père. balaa balaa la seng la fii ci dëkk. ay gën a takku saan mag takku saan mag Ousa. kenn du ko ba kenn du ko fàtte. mais ñu war a waxtaan tuuti Jacob. jëm ci bis. waaw kër ga mu bëri bis yi nga xam ne ni ñu ngi koy waajal. waaw ama dem na waajal ki nga xam ne ni moom mooy Gris Bordeaux. Pokola mhm. di waajal liis. Mhm. waaye Zakab moom mooy ibbi baal bi. Mhm. war a bëri ki nga xam ni ne ni mooy Alboury. lamb ji bëri polémique. lamb ji bari coow. ñi naan Alboury dakaa xeeb ñi naan combat la ñi naan du lamb waaye Zakab nekk si ruqam nekk ci waajtaay yow ngay léppam indi ko. jiitu ko fi nga xam ne ni moom mooy signature bi tey nan ngeen waajalee xale bi. waaw sant yàlla rek jur si yonent sant ñaar sant seen atem mbàkk yàlla yàgg te wér ak njaboot suñu tubaab gi yëpp. ñu waajal ñu waajal lamb li ñu waajalee préparé nañu war a préparé def li war a def yàlla may ndam nit ñi. mais mais mais écurie Fallaye dañoo gis beneen xar kanam ndaxte gis nañ taay xale yi saa suñu ñëwee macha allah ci Babacar Balde ah nga ñëwaat ci xale yi si ñoom Boy Jules nga ñëwaat ci xale yi c'est ki nga xam ne nii moom moo bëri récemment muy Ambroise Jacob ñëw xale yi fi toll nii liggéey bi lan la ci équipe waaw ah, liggéey bi dëgg ndigal rek uh-huh. xam nga nit moom boo bëggee dara ngay dëgg ndigal boo ñëwee salle bi boo fa ñëwee uh-huh. kii nekk salle bi entraîneur mooy sa papa mooy sa yaay mooy sa sa kilifa boo gën boo demee sa kër nag sa papa sa yaay ñëw sa kilifa wax ne boo ñëwee ba salle ba moo sa kilifa lu mu la wax da nga koy def uh-huh. moo lay may sa secret si sport lan la moo tax booy ah, xam nga lamb dafa métti. Hmm. lamb yoo dong la ak mbër bi. Hmm. boo entraîné wul kenn amu ko lay sotle. Hmm. waaw entraînement moo lay sotle ah. tey tey bi noo ko dundee. sant yàlla rek drapeau bi Pape Sarr. bi mooy deuxième fois première fois tuddee na Baba Yo. Tibitari. mu ñëw mu tuddee am drapeau kon yàgg na def loxoom si. suñu kër. tey booy ñaa ñëw saafanteeg paate saafanteeg waa kër gi yëpp àndandoo ne ama fu mu nekkul war naa ko fa mën a teewal mu mel ne tey polémique yu amoon biir Pikine tey bi booy ñaa ñëwee tey am na biir loo xam ne tey defaraat te loolu loo ci wax non gars yi xam nga gars yi dañoo nekkoon xam ba nekk sa ruq bu la jaam micro nga wax loolu la neex Pikine Pikine li fa nekkoon ne ba tey ñoo fa nekk ndax ñun ñëpp ñoo doon ànd dem bappat di bëri ba fii ay déggoo ñun ñëpp ñoo doon ànd kon Pikine nu musa mel Pikine nga musu leen daan ñaar yoon sax dëgg la te mosu leen daan ñaari yoon mbappat ak si mun na doon bokk ndey bokk bàyyi rek bañ bañ a déglu déglu baaxul non xam nga taal bi seen tubaab bàyyi laat ngay sol wala turki njaareem comme nii pare fépp pare na si kii nga xamante ne mooy jabaatam doxal sëriñ soo ko fa ngi noonu mais ñaar mooy taalibe ñaar mooy champion la waaye ndaanaan la mais sax benn kaddu rek bala ngaa dugg si biir sax lay wax parce que léegi léegi laaj nañ ko bëgg nañ bëggoon naa a mu ne xeebu ma ko. dafa teg jeexal dafa teg jeexal. waaw posé posé posé. may na ko ay déglu demee leen na demee leen na leen. kan moo jàppale si demee leen. waaw ñëwal. Ousseul bàyyi dóor waaw waaw Cheikh waaw. Jalla Touré Jalla Touré libéré libéré espace. waaw bàyyi ba mu génn. demee na demee na. libéré espace espace. làmb ji le 4 la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le 4. dëgg la sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fattal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaak bi da lay dal mënoo si dara. day neexal gem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom maire la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa bee gën a dëgër maire. amul arrêt la kat di nga am arrêt te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doo départ.